fu non Yewwi les autres et cetera ñi Barthélémy Yewwi c'était dans un cadre pour préparer les élections locales et les législatives absolument Yewwi présidentielle Yewwi n'existe plus c'est dépassé dañu nekk ci beneen dynamique dañ ko wax je n'ai jamais vu des gens aussi contradictoires <laughs> que ceux qui sont dans Yewwi et qui en veulent à Khalifa Sall vraiment contradictoire comme si politique tey la quoi tey la judd nii rek ku nekk war maintenant imposer nit ñi à ce qu'il des œillères. et puis ak pensée unique. pensée boo xamante ni mais c'est extraordinaire. comment comment Yewwi aujourd'hui peut se retrouver def communiqué ne dàq nañu. xalifa Sall taxaw taxaw Khalifa Sall ba dàq nañu parti bi quelle ingratitude dix mois dans Yewwi sans taxaw en dehors ex-Pastef bi fi nekkoon ñan ñoo fi nekk ñu xamante ne tey ils ont une légitimité bu tax sénégalais yi naw la. il y a ah, ak pur pur daal à un peu pur. Ah, amul leneen ah Malick Gakou non ñooñu euh, soxna Aïda Mbodj Maïmouna Bousso ñooñu actuellement euh, non ak ñooñu actuellement ils considèrent Pastef comme l'os de Mor Lam comme l'os de Mor ah. dañu bëgg a outil électorat wu Sonko moo tax ñuy am cette position. wax na dëgg de. mais gëmuñu ko sax ñoom. d'autant plus que Sonko il a des problèmes pourquoi ils n'ont pas eux-mêmes def grève de la faim pour soutenir Sonko. naan ko bàyyil grève de la faim bi. lu tax bokkuñu si. ku mel ne madame il faut le soutenir euh, Sonko. Euh, Ndeye Fatou Ndiaye Blondin moom nee na nañ def këpp cin. non bay non amul këpp cin dafa ne nañ def grève de la faim comme moom. <laughs> demuñu wala ñu ne nañ def kii waaye xanaa lañ ko wax bàyyil grève de la bi bàyyil lii. ñoom ñi waxoon ne Sonko du dund lii yëpp ñoom tey ñoo war a rus kay ils n'ont pas ils n'ont pas aidé Sonko te dinañ si ñëw ils ne l'ont pas aidé au contraire ils l'ont enfoncé ils l'ont poignardé. nañu jéngoo woon dem Ziguinchor nañ jéngu fii. dañ jéngu def lu ñuy def ca xam nga aujourd'hui les gens pensent que l'adversaire potentiel de de Sonko c'est Macky Sall non. c'est eux qui sont avec lui di ko bàyyi muy def lu ko neex ba tey mu dund lii. quiconque qui allait être dans cette position bi Sonko nekkoon tu n'allais pas tenir des discours aussi insurrectionnels des discours usures aussi aussi qui vont à l'insurrection ou à attaquer ñoom ñëpp y a personne ñoom ñu ko def c'est-à-dire ñoom tey muy wax nii dañu doon jay discours jay boobu jay boobu bu ñu jay Sonko jay Sonko moom egg si biir bu mu am ay problème ñoom ñoo ko si teg ñoom ñoo ko si dugal encouragé quoi ñoom ñoo ko si encouragé mhm. yow tey nan nga mën a concevoir ñu dem élection locale ni ko Assane waxee dem élection législative ñu ne loolu mooy suñu bi après ku nekk dama sa bopp qui a été le premier à déclarer sa candidature c'est qui c'est Sonko. Mm-hmm. bien il a été le premier avant même Khalifa Sall il a dit ouvertement unilatéral sans concertation ni quoi que ce soit je suis candidat waaw mm-hmm. léegi Khalifa avec son cursus son parcours comme ni ko Assane waxee réew mi il faut nga xool ñu am parcours parcours am cursus mm-hmm. c'est important dans un pays on peut pas lever aujourd'hui rek di fal n'importe qui regardez aujourd'hui dans les ceux qui ont utilisé le populisme jusqu'à être maire qu'est-ce qu'ils ont fait depuis lors mais xamuñu sax fi ñuy def ak li ñuy jaar et ce populisme là doit finir dans ce pays et loolu pour mu am il faut qu'il des gens une autre frange dans la société ku oser affronter ces gens qui vont imposer cette pensée unique ça ne peut pas passer dans ce pays mënul nekk maintenant Khalifa mhm. waaw léegi ñaata xeex lañ fi xeex imposer pour que Khalifa pour que Karim Wade et Khalifa Sall soit candidat. ñaata yoon Assane waaye yeewi <laughs> ñaata yoon lañ ne dañuy organiser marche. dañuy xeex est-ce que la rue aujourd'hui dimbali nañu ba tey Khalifa Sall ak Karim Wade bokk. amul. waa léegi na yàlla indi lu ñu concertation euh, dialogue. Mhm. ñu ne d'accord quel que soit Alpha on va dialoguer. Mhm. ñu ne pourquoi ñu ne pour que au moins ces deux-là puissent être candidats demain. alors que c'était une revendication. de Sonko et de tant d'autres. parce que bu Sonko fàtte ne. am na lu bëri loo xamante ni li ko dimbali tey ba problème yi mu dund yëpp mu génn si le cas xalifa Khalifa le cas de Karim bi ñenn ñi considéré woon comme étant une injustice moo ko dimbali moom. waaw tey nag yow loo leen di fayee ay traite loo leen di fayee ay deal. alors que ñoom tey li ñu fi ñu dem nii muy dialogue bi dimbaliwu leen tey. Mm-hmm. mais est-ce que déshabiller wuñ Jean pour habiller Paul. c'est-à-dire libérer ñaar ñële. jël ki nga xamante ne moom lañ considéré comme le comme comme le comme waaw léegi Ousmane Sonko. waaw léegi waaw non non non non. le chef de l'opposition d' abord ñoom ñaar tey candidat lañ te loolu Sonko bëggoon na ko Yewwi bëggoon na ko yàlla dimbal nañu si dialogue bi mu am waaye ñoom du ñu tàcc même bu fekkee demuñu foofu ci concertation yi. léegi la chef de l'opposition non c'est-à-dire que moom problème am ak problème mu ñaari ñi du benn. il faut nga xam loolu. le cas de Sonko et les cas de Khalifa ak Karim du benn. d'accord. ñële. c'est des décisions qui sont sorties et des décisions qui ont été exécutées par la justice ba pare kii problème am moom moo ko créé boppam kenn créé lu ko de deux mille vingt à nos jours tous les problèmes yu mu am moom la. d'accord mais moom. moom la mais kenn tegalu ko tey mënoon na. def waaw oui. tey mënoon na def ba yii yëpp du ko dund. il n'avait pas besoin aujourd'hui que moom Adji Sarr ñu egg à ce niveau. il n'avait pas besoin aujourd'hui que moom Mame Mbaye en tant que leader mu egg à ce niveau bëgg tey il n'avait pas besoin aujourd'hui que li mu dund nii avec l'histoire de l'insurrection de l'atteinte à la de l'État de tant d'autres ñu koy tuumaal moom dafa bañ a egg s'il avait les qui connaissait le sens de la responsabilité la responsabilité d'un homme politique mooy ngay woddu sa wax ngay xool lu baax li ngay wax pour éviter parce que un état c'est un état. mais may ko ñàkk bañ a may euh, Karim Wade ñàkk bañ a may Khalifa Sall moo ko jural tey mu am cette chance moom Khalifa Sall moom kii euh, euh, Sonko parce que sénégalais d'une part dañu considéré woon ne Macky Sall boo gisee muy def lu yëpp mooy dafa bañ dafa bañ qu'il y ait un adversaire potentiel autour de autour de chaque moom moom nag moom nag amoon na ko mais malheureusement ni ñu ko utiliser moo baaxul politique nag dafa am réalité dinañ si ñëwaat léegi ci suñu troisième thème